kaay yeeg Alaaji Baba Ndiaye mbaa yéen a nga ca jëwriñ gu ñu denk wàllu bureau me karange démb daj na lu mburu dul daj ci taal ci pénc mu ndaw réew ma laas ne l'opposition bu Sénégal kay démb lu mu ko waxul ko fàtte ndaxte waayu Idrissa Seck ba woon nee na ko sa ñàkkum compétence ak sa ñàkk maturité ci wàllu politique moo soob réew mi ci jafe-jafe gu rëy gi mu nekkee Abdou Mbow di ko tontul ci laas ni saaga yu ñuy def jëmale ko ci ministre yi du dëgg lu yoonte nag lu a njiitu réew Macky Sall te dana ko yóbbu pourvoi en cassation te préfet sous préfet jaar fa ginnaaw ndigalu Félix Antoine Diome yéeglekaay bi ne démb kay règlement de compte dëgg nag moom diggante Félix Antoine Diome ak député yi fare ci l'opposition bu Sénégal l'info ne l'opposition bu Sénégal kay démb dafa dal ci kaw Félix Antoine Diome daanaka nag lu mu ko yàqul da ko fàtte ginnaaw yéen liste yi nga xam ne ba tey ji des nañ koy dëggal ngir mu bokk Antoine Diome sa ñàkkum compétence ak sa manque maturité politique moo waral coow li lépp ci réewum Sénégal ndax day jàppal ni lu am ci réew mi nag laata élection yi ak ginnaaw élection yi lépp yow la ndaxte njiitu PRP nee na bëgg-bëgg moom Félix Antoine Diome mooy fexe ba liste yu bëri bokk ci l'opposition bu Sénégal ñu gàntal ku mu bañ a ci élection yi ay dem boo ci l'info ni bu dee préfet yi sous préfet yi amee nañu bile taxawaay ci réew mi lu ji njaak Félix Antoine Diome mooy njaak nekk ci ginnaaw coow li lépp Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne yow Félix Antoine Diome Macky Sall njiitu réew mi nga fi nekkal tout cas Sénégal démbal daan nañ ci ko ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome waaye ñoom l'opposition bi lépp lu ñu baax ñu faral njiitu réew mi Macky Sall nañu ko ndax jàppal nañ ko tànk moom Félix Antoine Diome ndaxte Mamadou Lamine Diallo nee na yow Félix Antoine Diome agenda Macky Sall njiitu réew mi ngay doxal te moom Macky ku ne na bëgg-bëggam mooy fexe ba l'opposition bañ a amati ci Sénégal waaye nara leer ni loolu du yomb ci xamal ni nekk Toussaint ne ko a te a def ni mu waree te am na ñoo xam ne jaruñoo tontu jaruñoo déglu ndaxte yaa xam tuwuñu lu dul benn ministre ñëw ci assemblée bi ñu koy saagaaka dal ci kawam libération ne ñetti junni ak téeméer ak fukk ak ñaari déclaration candidature la jot ci réewum Sénégal fanweer juróom-ñetti yoo xam ne dañ ko gàntal ak yeneen fanweer en cassation yëglekaay bi ne en tout cas juróom ñaari milliards suñu koppar la ñu jagleel wàllu kaaraange gi ci réew mi source année juróom benn téeméer juróom fukki junniy carte la ñu defal yees ci réewum Sénégal la tribune en tout cas réew mi daal ñàkkul yu wax la fel seddul ndax mbooleem secteur ci réew mi day métti yëglekaay groupe des médias bi ne violence université ne fitna gi ne ci réew mi na dakk te lépp lu mu laaj ngir mu jeex ci réew mi danañ ko def laas ne bu weesoo assemblée nationale démb nag université bu Bambey tàgg jër la def ndax étudiants yi ak way takk deru kaaraange ñoo samp ger wu saf sàpp seen diggante te na sax ay policiers yoo xam ne démb étudiants yi dañ jàpp séquestré leen ba noppi tegi fitna yu metti seen kaw laataa ñu leen bàyyi Sud Quotidien en tout cas waa SAMES nag ki tey ji débéraat lu ñu jëm ci alxames gi grève totale la ñuy def bés bi la journée étudiants yu nekk ci université bu Bambey démb dañoo wàcc ci mbedd yi yëngu ndaxte nee nañu leeraange dëgg nag la ñuy sàkku ginnaaw faatu seen naataango bi di Alioune Badara Ndiaye réew mi korjene ginnaaw lu yaas bu seer réew mi Aminata Assome Diatta dénk wàllu njënd meeg njaay mi nee na yi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko jëf rek la ci bëgg ci bayeer yi bés E-Media moom ma nga ca njiitu réew mi Macky Sall ndaxte yëglekaay bi nee ma ngay waaj ay bagaasam ak i walisam ngir jëm ci présidence Union africaine te moom Macky Sall njiitu réew mi ay dossiers yu tàng jëriñu nga ci kaw taabalam di ko xaar bés bi la journée waaye nag Macky seen relation am na fu mu tàmbalee waaye nag amul fu mu yem ndaxte yëglekaay groupe immédiat bi nee ba ñuy defaraat kërum Abdoulaye Wade ga point e moom Macky Sall dugal na porteur joo kaddu gi Malick njiitu grand parti muy ndi ay leeral ci ay ponk yu bëri ndaxte moom Malick Gakou nee na parti bi nekk du remorque benn formation politique l'évidence ne waa Gassane nee nañu waaw seen doom ji di Ousseynou Ka nekk candidat coalition ànd liggéey sunu gox askanu Gassane gépp nee nañu yaakaar wurée la ñu am ci moom ndaxte seen dëkk bi daanaka dara amu fa lépp la manqué te yaakaar gi ñu ngi ko teg ci Ousseynou Ka ci élection locale yu ñu tànk seen directeur général di Abdoulaye Bibi Baldé ndaxte ñoom syndicat bi conférence de presse la ñu gontoon démb di sàkku leeraange ci financement yi nga xam ne Saliou Fédior def na ko jëm ci njabootam ndaxte nee nañu waa ji di Saliou Fédior njiitu poste finance ay financement yu bëri la def te nag ay njabootam côté la ko jagleel ñoom syndicat bi yamu ca ndaxte dëj nañu jëw ni gu ñu denk wàllu numérique ci réew di Yankhoba Diattara cib te nag am na écurie di Siteu ak Papa Sow yëgle kaay bi ne Siteu nag boo mooy avertissement lañ koy jox waaye tëggkatam bi boo mooy dañ koy dàq ci arène bi ba faw critique ne benn directeur école lañu fëgg juróom-ñaari atu kaso ndaxte moom directeur bi li koy toppee mooy siif benn xale bu jigéen mais da seet loolu rek